voilà ba tey ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy jàmm gën tey nag dañoo fas yéene waxtaan ak ñoom naka la ñuy waajee combat bi tey nag ñu ngi ki nga xamante ni moom mooy Fodé bokk ak Siteu dañ leen nuyu Fodé di la ziar. waaw maa lay ziar soxna si. yaa waaw maa ngi ci jàmm bu baax sax. tey ñu fekk leen fi nga xamante ni moom mooy seen diwaan di jàmm gën naka ngeen di waajee nga xam ne moom mooy combat bi. waaw nice comme nii rek ni nga ko gisee nii saa moom pare nañ moom saa yi moom nice di xaar dimanche rek mottali affaire bi fu ñu waroon dem yëpp dem nañ ko waaw dimanche rek soulagé wu dimanche moom dañuy feetu moom loolu moom leer na moom. non si man de dama siy kaaw sax ragalu ma loolu waaw. non sama grand dama ko wóolu xam naa ko ñoo nekkandoo deux mois xam naa ko xam naa li mu capable lu mu capableul waaw am si carte de du caaxaan de. non waaye tamit yow man. déggoo lum la wala déggoo lum la xanaa yàlla mbin xam naa ko du lu ma moom de. mais dama ko gis mu entraîné bi ma gis ñu mu kontaagal ku mun ku dul Lac de na laa daan billaahi waaw. yàlla ak ngay aussi ñu leen di nuyu di leen jaar. Euh, waaw jaar nañ soxna si yaa am jàmm. bu baax a baax naka ngeen di waajalee li nga xam ne moom ak ki nga xam ne moom mooy waaw ñun kay ñoo ngi woo monde entier ah. di leen tàllal seen loxo ñu ñaanal ñu. ñu jàpp la de guerre daan ko jël bu yomb. xam nga ñun xam nañ Siteu te de guerre du problème kooku ragal guerre la tudd ragal guerre. ragal guerre. Lac de mooy ragal guerre. moom du mus ñëw moom moom wax rek lay def. taxaw de. day dëggal boppam ñun loolu lañ bëgg bu dëggalee boppam daan ko jël bu gaaw bu yomb maa la ko wax fii. yow loolu nga waaw loolu waxat waaw loolu jeex na yàgg na ñoo ko fa am barki Serigne Touba. am moom benn affaire laa leen wax rek. Lac de Guiers boo leen demee ngeen ne ko mu bàyyi yaaba bi day laale Lac de Guiers ngir yàlla war a suul ñoo la ko ñaan baal yaaba bi day laale. yaaba bi luy loolu luy loolu. daw yi muy def daw yi mu nekkee si temps. nee na bi yoon bi yoon du daw de. waaye Lac de Guiers discours am yi mis nañ ko. ñu loolee mu lum de Siteu dañ ko yónni yàqamti ko taxawal dëggal sa bopp rek yow. tey loolu leen di wax waa Guédiawaye ndax ñu bëri ñu ngi naan Siteu mooy feesal li nga xam ne moom mooy stade bi waa Guédiawaye loolu. waa Guédiawaye ñoom du leen may dara. non loolu loolu waa Guédiawaye bu ñu ko waxee dañuy wax lu leen neex yéen yéen a ngi gis ngeen Siteu Siteu mooy làmb Siteu mooy mooy arène ba foofu suñu toolu maam la foofu ñoo ko moom bañ bu ñu fay dem duñu jël oto dañuy dox waa Guédiawaye nañ xaar foofu làmb jàmm gën moo ko moom jàmm gën mooy làmb maa ngi nga waroon a jël nice. maa yaa ngi nga ñii. waaw nice ngeen di waajale. waaw taw feex pare nañ rek di ci fecc yu sama seex la du ngi ñaan yàlla defal ñu jàmm ak taw feex rek may ñu ndam bu seddu guy loolu rek la quoi. waa Géejawaay ndax euh, ñu bëri ñu ngi naan bu ñu yéexee duñu am place ndax si taay feesal stade bi loolu leen wax ñoom. waaye ñoom bañ nañ lool. waaw waaye ak jàmm gën ñun ñëpp benn lépp Sénégal la affaire dërëm gi génnul gaal sport la quoi eh, nañ ñëw ànd ak seen mbër gunge ko ñun ñu ànd ak suñuy mbër donte nag xëy na ñun la yàlla dara jaal ñoo ëpp doole ñu ngi ñaan yàlla bis yàlla nañ ëppee noonu mënee noonu te daanee noonu incha allah. Mhm, dina daan la dëggee jël amul benn werante. waaw loolu la ñuy ñaan yàlla la dëggee la c'est un grand champion waaw jox nañ ko waar waaruwaayam jox nañ ko cëram jox nañ ko léppam. mais ñu ngi ñaar yàlla bis ba yàlla ànd ak ñun rek. waaye Bintu ñu ngi lay siyaar ak sa cameraman waaw ñu ngi lay nuyu yéen ñaar ñëpp ñu ngi lay nuyu di leen sant di gërëm. Moussa ñu fekk la tey fi nga xamante ni moom mooy buntu kër Siteu ma gis ni ngeen di waajalee li nga xam ne moom mooy combat tey lan ngeen di waajalee combat bi. ah ñu ngi koy waaj rek ñu ngi koy waaj ànd ak suñuy mbokk ànd ak waa Diamaguène waaw ànd waa Diamaguène Sicap Mbao Diamaguène Tabla Xaarim ñu ngi waaj bi kon kon rek. ñu ngi koy waaj bu baax nag ñu ngi koy waaj bu baax jàmbaar yëpp ngi koy waaj. tey la guerre euh, jàpp na ne tey bu wala wax na sax nag bu jàppee si tët bay des tey la ngeen koy wax. no lat lat moom amul lu ñu koy wax moom lat adversaire la rek kon yeneen adversaire yi moom na ñëw rek yàlla na ko yàlla may fekkee jàmm mu ñëw dimanche le 19 yàlla may ñu ndam si kawam waaw lu mu indi nag fekk ko fi nag lu mu indi fekk ko fi. Siteu ñoo taxaw jàkkaarloo Siteu daa jàng xeex ba mokkal Siteu États-Unis la jàngee xeex ba mokkal ay américain ñoo ko jàngal xeex Siteu mun na xeex ak cinq personnes la de Guiers Lac de Guiers Lac de Guiers Mathieu Lac de Guiers Mathieu Alioune Seye 2 Alioune Seye Junior ñooñu ñëpp buñ taxee Siteu mun na xeex ak ñoom si benn si benn tàkkusaan Siteu ku mu ñemewul xeexal amul xaa seetaanoo Siteu Zarko noonu la demee nag Zarko ku ko gën a nekk ku ko gën a nekk der ku gën a nekk jàmbaar Siteu ku mu ñemewul xeexa amul Lac de Guiers moom na taxaw rek Siteu nee na ko ñaanuma la saraxuma la lu mu moom da koy jëli ji Siteu lu mu moom da koy jëli ji Siteu gone yi dañ koy yónni yaa xamti ko de lu Mor Kandé di wax pot bi lañ soxla pot bi pot bi moo roi des arènes waaw pot bi moo war a ñëw jàmm gën voilà pot bi moo war a ñëw jàmm gën Siteu da ngaa war a indi incha allah Eh, Siteu jàpp ngeen dina daan la dëgg indi leen pot bi jaamu gën fii mooy roi des arènes. waaw Siteu Siteu day indi roi des fii jaamu gën si Kambaaw jaamu gën si Kambaaw dina indi roi bi fii incha allah bu neexee yàlla ak bi. moom lay wax la de guerre lay doon dañu daal di. la de guerre moom la ma koy wax suñu grand la jox nañ ko cër bu moom bu ñëwee moom na yarul rek. waaye démb dégg ngeen de presse na dina comme ni muy noom bàyyi na xel si moom moom moom moom amul ñun la dëgër amuñ luñ koy luñ lu ñuy wax si moom man lu man waxam sax man ay waxam sax man lijjantiwuma ko man sama mbër rek laa lijjanti muy Siteu Yelmine bi yàlla na ko yàlla defal ndam lu sed bu sedd guy bu neexee yàlla bu dee yàlla xol rek lay fay yàlla na yàlla fay xolu Siteu dimanche Siteu si baaxaayam quoi aman laay wax si baaxaayam yàlla na ko yàlla fay xolam lu mu bëgg bu dimanche yàlla na ko yàlla may si barke yonent bi